je l'époque waaye. à l'époque man rek maa doon maa doon joué. voilà yow. nga si ñu animé woon. Euh, truc waaw c'était un concert euh, inédit. Mm-hmm. gisee au temps est-ce qu'il y a changé entre-temps. c'est la maturité c'est l'expérience c'est la sagesse mm. c'est la sérénité après. Euh, mooy li ma la li ñu doon wax sànq en certain moment tu penses à autre chose parce que ak wër nga àdduna bi tu as besoin d'abord sa expérience bi nga gagné te au lieu nga koy sotti extérieur kese mais da ngay soxla sotti ko fii da ngay soxla exprimer wu bon c'est dommage que c'est pas préparé parce que reconversion des artistes mhm. dañ ko war a xalaat reconversion des artistes ci loolu laa doon Mm-hmm. parce que on a beaucoup de choses en nous boo xam ne war nañ ko yebbi pour la génération future pour notre pays mais reconversion bi mooy problème da ngay nekk musicien jusqu'à quatre-vingts ans pourquoi mm-hmm. am na ñoo xam ne ñuy teel a dem arrêté pour def leneen yow boo demee imaginer nga wër adduna bi wër adduna bi moo tax par exemple j'ai beaucoup apprécié le fait que même Youssou Ndour dugg ci gouvernement mm-hmm. dafa am lu nekk ci moom il faut mu génne ko